bismillah ci xibaar yi gën na ca fas lu doy waar foofe ca euh, commune bu Sirimana ca région bu Kédougou fa ñu defaree lii di or nag euh, suuf moom moo fa daal di màbb ci ab xale bu jigéen ñàkk na bakkanam fukki at ak juróom-ñaar la am am na sax keneen koo xam ne beneen soxna la am na ci ay gaañu gaañu leexal ci biir xibaar yi. ñu daal di bàyyi jàngalkat yi ñu teg loxo wa tamit daal di warmal li ñu daal di xaatim ak gouvernement bi SAEMS ak kisam da ñaari syndicat ci njàng nag ñoom ñoo daal di ànd doon benn ne taata bi ñu dëgmal dara du yëngu ci njàng mi ci Sénégal gi yëpp nag ñu daal di axtu kilifa yi ñu daal leen bàyyi xel bu baax a baax tey ñoon waxtaan wa taskatu xibaar leexal ci biir xibaar yi dañu jël ba mu doy ci wàllu gendarmerie président Macky Sall ni ki dem nag daal di xamle ca ba ñu daal di inauguré état major bu camp Dial Diop ndax loolee saytu wàllu sécurité wala lii di kaaraanga ci euh, wàllu woowee waaye tamit ban njàngal lañ ci mën a am leexal ci biir xibaar yi ñu seen xel ma ci wàllu sécurité. xibaar yi biti réew dañu dem foofe ca Mali commission nationale buy taxaw ngir aar ak yelleefu doomi aadama daal dina jëbal rapportu 2022 ñeel. lépp lu euh, yëngu ci wàllu ak yelleef doomu aadama foofu ca Mali ba sax wala politique dina rapport boo xam ne dafa daal gis ne dañu daal di joxati li nga xam ne moom mooy sañ-sañu askan wi foofee militaire yor nguur nag dinañ ci di ci indi ay tontu ci biir xibaar yi. ñaal pàcc xibaar yi ba tey tàggatam ak Jamal Junior euh, dinañ tamit ànd ak yéen ci lii di gis-gis juróomeelu recensement général askan wi xam nga ne Sénégal jamono ji ëpp na fukki million ak juróom-ñett ndaw ñi ñoo ci gën a lool sax ban njàng lañ ci mën a am Jangan ak yéen ci la njaxtal xibaar yi ak ñaan seen xel màcc ci wàllu ci technique bi Aliou Ba ak May Samba di ci assalamu alaykum Nourou Ba. dal leen ci rajo bi ngeen tamu RFM di lu doy war faral di gis ma di deg ci yenn ci ay gox fi Senegal rawatin sax fofé ci Kédougou. ap euh, suma mo daldi di euh, ci ab gox bu ñu wala di tëggee li di or moom nag ñàkk na bakkanam mu ngi am foofe ca village bu seen euh, di sa Sayen surtout ca commune bu Missira Sirima moom nag ñàkk bakkanam xale bu jigéen la am na fukki at ak juróom-ñaar euh, suuf see euh, màbb ci moom mu jaare fa ñàkk bakkanam di ab carrière keneen tamit di ab soxna moom ñàkkul bakkanam waaye nag am na ci ay gaañu gaañu juróomi wala ñaari simili tegu ci benn fi jaxajo bi ngeen taamu RFM ak RFM kumpa jeex na dañoo mer ba futtu di client yu poste finance ca Louga ñoom daanaka seeni salaire dañ koy jot ci anam yu doy waar boo tamit dafay daal di tardé lool am sax ñenn ci ñoom daal ñu ne dañu am problème ngir jot ci lu ñu moom man lu ñu fay denc ñu nag yëkkati ay kàddu di ko jébbal responsable groupe de la poste ngir ñu indi ci ay saafaram na mu gën a gaawee ndax sonn nañu lool Nafisatu Njaay ci ay leeral ñiy fayeekoo seeni salaire ca diwaanu post jamono ji mai ba futu lañ def li ñuy naqarlu mooy anam yi ñu yéexee jot seen salaire bu ñu sukkandikoo ci Ousseynou Diop mu yox seen kàddu salaire yi dafay am retard mais li ci gën metti encore mooy poste finance yëpp fay nañ ba mu des Louga xamuñu nag exactement ban situation moo tax ba léegi Louga mënuñu ko ñu dispose seen fonds pour mën a fay moo tax ñuy interpeller le DG pour ñu wax ñu exactement lu tax ñu fay poste finance yëpp ba mu des Louga ba léegi ñu ngi nii comme ni nga ko fonctionnaire yi nga xam ne ils sont du grand fonction ñoom ñëpp ngi taxaw pour xaar ñu fay leen seen salaire mais ba léegi dara. ginnaaw loolu leneen lu ñu naqarlu bokk na ci xataayu saal bi nga xam ni fa leen jotee seen i payoor. fii ñu nekk nii dafa xat ba nga xam ne mënul continuer plus de dix personnes te souvent dañuy boole ñun retraité fonctionnaire yi ñu daje fi on fait plus de cent personnes benn jour ñu bëgg ñu fayandoo ñii dañuy mujj ñii dugg ñii nekk ci biti même fu ñu toog nii sax fu ñu toog nii ñii dañuy nekk ci naaj wi ñii taxawal fi et cetera am na loo xam ne tam rafetul parce que nekk foo xam ne dafa nekk ci wetu gare routière nit ñi di romb di xool naan ñii lan lañ fi taxaw ak lu xew am na loo xam ne sutura du ci waram beneen affaire ba ci des tam aussi mooy problème épargne bi am na ñoo xam ne dañu koy dénkaane seen xaalis dëpp booba léegi bu ñu ñëwee ñun leen li ngeen fi mën a jël mooy seen salaire wala boog mën leen fi jël leen lu épargne yi mënagul génn nañ fay nit ñi seen épargne parce que du bu ñu leen lebal xaalis dañ fa ñëwoon wóolu leen dénk leen léegi nag bu ñu soxlaa seen xaalis dañ leen ko war a jox ñoom nag ñu joxoñ baaraamu tuuma kilifa yi nekk ci bopp poste ci waxtaan ak suñu kilifa duñ ci jëlee lu ñu neex ndaxte duñu tontu mukk lu leer mu nekkit loo xam ne dañ koy naqarlu ce qui se passe. Elles sont en train de tourner en rond et c'est ça qui est frustrant. borom kër yi nga xam ni ñu ngi fayeekoo seen salaire ca diwaanu poste ci njàqare wu mag la nekk tax sax ñu woo directeur bu poste ngir mu saafara yile jafe-jafe ci nu mu gën a gaawee Nafisatu Njaay Louga rajo Futurs ñeneen ñu mer ba futtu Nafisa mooy ñi di waa CMS CUSEMS di ñaari syndicat ci wàllu ñàngam ak ñàngale mi lu daal bëgg mooy ñu daal di bàyyi loxo ñi toog ñi teg loxo euh, ci ñi day enseignant waaye tamit ñu daal daal fexe ba nguur gi sàmmonteeg li ñu daal di xaatim euh, ci seen revendication euh, tey nag daal dañoo daal waxtaan ngir ñu fexe ba ñëpp daal xam ne taar bi ñu dëgmal euh, lekkool daal du fi yëngu moo fépp ci Sénégal la lañ ko daal di xamle. leexal yi ak ki yoroon kàddu yi ñi di waa kis sa di Ndongo saar ci téléphone bekk na fi ak salimataaw dañu gis ni dafa bare ay problème yoo xam ni dafa am ci secteur et problème yooyu yëpp li ko jur du lenn lu dul ay accord yoo xam ni dañ ko signé woon ak nguur gi donc nguur gi dafa jëloon ay engagement

ci ben bis bo xamni dañu décréter ni école morte lay nek muy talata juroom ñaari fan ci weer bi bis bobu dañu fas yéene réew mi du am fenn fo xamni fi dañu fa jàngale dañu décider itam déposer ben préavis de grève bo xamni ñun ñokay bok bokk mu amit li ñuy wax suñu ñoñ yi nga xamni ne dañ leen jàpp tëj leen te teguñu ko fenn li koy firndeel moom moy bare na ño xamni japp nañ leen tëj juróomi weer ñii juróom-ñaari mais bi ñu leen bàyyee dañu xëy rek bàyyi leen noonu ñoom seen bopp bi ñu mais lutax ñu bàyyi leen ñi leen doon garde

ñaari session ñu amal ko ci ne mu gën a jaare yoon ci ñaari semestre yi ci atub 2022 2023 waaye tamit ñu daal di samp euh, fukki amphithéâtre ak juróom-ñaar ak euh, téeméer ak juróom fukk ci ay place waaye tamit ay pavillon yoo xam ne daal dafay am lu mu néew néew junniy lal ñu wutali euh, commune bu Malika ca Mali bu Ndakaaru benn lycée rek moom moo fa am daanaka sax turwee fa ne ndax foofe daal élèves yi ngir ñu def ko dañu dem génn dem ba ci ay yeneen CM am sax ñoom dañu daal di wër ci tali yeeg di ut beneen salle de classe euh, daal boo xam ne mën nañ ko am ci yeneen l'école ca commune ba yokku ci nag euh, njàng mi ci tu tànk dafa daal di sooxee lool leexali ak Aminata Ba ci bile salle de classe élèves u terminal yi di tok par ñett ñeneen ñi nak nek ñeent ci table bi mu metti sax ci ñom ngir ñu jang ni mu waré ndax xataayu classe rose di ab élève duñu me permettre ñu concentrer parce que parfois effectif bu bari yooyu noonu concentration bi da fay wàññeeku ko trop des fois sax profit dañuy am problème ko jema contrôler vu la situation actuelle de la classe collège d'enseignement moyen bu malik Plage ñu dal di koy def lycée ci ñaari at ak légui classe yëpp nak tolu ci fukk ak juróom

ñun ñu jël ko défarat ko wut ay table banc dañuy ñaan ay table monté dé de lycée Malika Plage bi ñu dooree liggéeyi ak léegi mot na fukki at wante chantier bi mënta avancer ndax coowal suuf. suñ coono bi gëna a mag mooy dañu nekk ci école bo xamni ni fi mu waroon nekk du place am am lycée bi ñuy tabax mais pareegul lycée bi dañu fekk né dafa amoon problème souf fi ñu njëkkoon choisir pour def lycée bi fofu dafuñ ko lycée bi moom yeneen problème ñom ñu jëlat benen site bu ñu wara def lycée bi. mais malheureusement ñu ko jëlee waa Descos ñoo si d'accordul woon. responsable yu lycée yi di xam ne ni saisir nañ ay yoon yu bëri autorité locale yi ak éducative yi waaye ba fii dara antuwul nekk tekk tekkaaral boo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu Aminata Ba Kër Masar rajo Futurs Médias. mu des ba tey ca boor yooyu di beneen coow ci wàllu suuf ca jaxaay ndax collectif bu ñu tuddee aar suñu dëkkuwaay mooy joxari baaraamu tuuma. doomi aadama yu tek loxo seeni souf bari na ay terrain yoo xam ne ñu ngi fa lu mu néew néew ñaari unité ak juroom ñaar ci ay Parcelles Assainies te Kër Massar ak Rufisque 1 dina ngir bo xam sax ma nga ca loxo yoon Mamadou ndjay mo yok euh, kaddu goge di kaddu euh, kuréel euh, bu tuddé seen bopp lii di aar suñu way ci téléphone bi wala micro beeg Aminata Ba. am ay avancé par rapport ak 1451 R bi. parce que bu ñëk bi dañ doon xex rek. mais xamuñu won fan la tambalé euh, ak fan la yem am demande bo xamanteni buñ ko defee légui au niveau de la HLM muy demande d'information ci titre foncier maire de ta parcelle di nga xam ban titre foncier nga bok mais liñu xawa xaw a jaaxal mooy li say say yoy doon jël terrain jambour yi di occuper li ci ëpp bokk ci 1451 r ñu nekk ni présentement ak yow mi ngi nekk le 28 87 liñ fi tabax du jeex di xaaj ndekete unité yëpp impliqué wuñu ci contentieux 1451 R bi au moment où nous ñëwoon di occuper terrain yi wala xamuñu di ko jaay dañu occuper hors 1451 euh, R mais kooku ça pose problème bu dee ñoom seen contentieux 1451 R la mais nañ dem occuper 1451 R comme ça contentieux bi ñu vide ko euh, à ce niveau 80 pour cent li ñu à ce ci ce niveau Keur Massar Rufisque 1 na 1451 R état nag jël na à bras le corps cette problématique de 1451 ba boole na leen ak judiciaire de l'État. pour ñu xool ñoom nuñ koy régler mais pourquoi nous loolu am ba pare ñu ñëwaat di jël terrain jàmbur yi ñoom état mi ngi leen di waaj a dédommagé waaw dañuy ñëw rek ñoom def jaxase menacé di jël terrain jàmbur yi di dugg ci yeneen titre foncier yi naan 1451 R. non mais affaire bi say en justice ñu ngi dem ak ñoom tribunal. ñeneen ñu wax seeni i lu waaye tamit ñàkkub courant bu doy waar ñu ngi koy dund ca dëkku kaw yi. beneen gox yoo xam ne daal foofe ñu ngi koy dund bu métte métti nag fa ca mel ni ci ka jéeri di ab village ba na ca commune bu Latmingué askan wi foofe mer ba futu waaye tamit mere ki jiite lekk ndax foofe la bawo te sax la neen mu ngi ci loo xam ne ñu ngi koy dund lu mooy ñàkkub courant Fatou Mbow gay yeewoo ca Cikajéeri nag di dund ci ab lëndëm ay at a ngi nii ñuy sàkku ñu daal di taal lii di lamp Ibrahima Ba Sàllo seen kaddu. ci réew mi état bi nag daf ñoo fàtte. ñu indiwaat fi ay doli paran doli paran mooy élection législative lañ indi poto yi samp ko dañoo doyal ci loolu. ñun courant lañ bëgg na dëkk bi tàkk. ndax y a des jeunes ñu jàng seen métier mënuñu exercer métier boobu ndax gisuñu courant ndax courant ku ne xam nañ ñu bëgg ñun lu ci kat ñoo ngi koy wax euh, Pape Demba Bitèye nga xam ne itamit ay jafe-jafe ñeel wàllum bërëbu jàngeekaay tax ba ñuy sàkku ñu daal leen di tabaxal yooyu la bërëb te bëgg nañ tamit ak benn CM ndax fii am na fi xale yoo xam ne bu ñu amee seen certificat dañ leen di orienté fente des fois loolu day faral indi ay jafe-jafe ba dañuy jaar fa bàyyi jàng loolu yëpp ay jafe CM jege fii ça fait niki noonu yile askan di sàkku directement ci njiitu réew bi Macky Sall ngir mu àddu ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkonteel jamono ji tax ba seenum village bi mënut a suqaliku benn yoon na. ñoo ngi am problème mu ndox ak problème mu poste de santé di wax ak président de la république loolu mooy suñu njàmbat. Fatou Mbow ci Kajeri rajo Futur Media. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. l'onchocercose di ab feebar daal boo xam ne dafay jàpp bët ak yaram loolu euh, ne danaka mu ngay jóge ci Sénégal ndax amul benn cas buñ ci gis ëpp na tey fanweeri at ak juróom mu ko ci ministre bu santé di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi jiite nag euh, suba ak tey euh, réunion bu njëkk ci réseau mondial ngir jële fi boobule feebar ba mu jeex takk nag leerali foofe ca sali ak Ndeye Mati Sénégal fexe na ba daal di xeex feebar bi la ñuy wax onchocercose onchocercose mi nga xamante ne mën naa dem ba mu say bët docteur Maria Robelo kilifa la ci biir OMS ñu dénk ko xeex bi lay jàngoro. feebar bi ñu naan onchocercose nag nekk na ci fanweer ak ñeenti dëkk ci àdduna wërngal këpp te loolee nag téeméer boo jël juróom-ñeent ya ci Afrique la nekk bokk na ci Sénégal waaye Sénégal it nekk na dëkk boo nga xamante ni moom moo njëkk dakkal li nga xam ne moom moo di traitement bi ci yeneen dëkk yi nag at mu jot foofu dañ fa fàcc lu toll ci téeméer ak juróom million ci ay doomu aadama. 94 millions de personnes. jamono jilé kon Sénégal mucc na ci bile feebar wayé dëkk yi ko wër mu ngi fa ni xas loolee waral nak ba nguur Sénégal né da fay fagaru Mari Xemes Ngom Ndiaye moy jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir gu yaram. tay ji gis nga bu Sénégal demee tay ba ñu wax né ne onchocercose amatu fi wëñ boobu nga xamné mo moom koy joxé dañ ak léegi ñu koy sét gis né Sénégal dal wax dëgg yàlla fim mu tankam fofu la. nguur gi gis né kon walu communication mën nañ ci jaar ngir gëna a ñaax askan wi ci ñi fagaru ci bile jàngoro. mu ñu ñëwaatee pour natt ñu ñu ngi ñaan yàlla duñ fi fekk dara parce que onchocercose bi nga xamante ne day tax nit ki gumba day tax nit ki di xasanu di xasanu ba yaram bi mel ni yaramu sindax wax dëgg yàlla loolu day tax ñu stigmatiser ko mooy ne day faj ñu beddi ko te day tax également du mën a liggéey. jëwriñ bile ji Marie Khemesse Ngom Ndiaye daal di fee jaareele xam ne kon am na yeneen i feebar yoo xamante ne ba léegi mu ci Sénégal yu ci mel ni Covid 19 ñu war cee fagaru donte bu dee sax liñ ci doon ragal yépp lu ci ëpp xeex nañu ko Ndeye Mathi Dieng Mbour rajo Futur ba muy inauguré état-major bu euh, caserne Samba Diéry Diallo ni ki démb njiit mu mi nag yëkkati na fa ay kàddu dañu jël yeneen ci ay gendarme fekk deux mille trente cinq ba mu gën a doy. ndax loolee def ko daf daf ko def ngir saytuwaat kaaraange ci l'armée bi rawatina gendarmerie ba tànk ñeneen ñu seen xel màcc seen kanam indi nañu ay leeral ana loolee lan moo ko mën a wundu dañ ci ànd ak Mouhamed Aliou Ba. buñ sukkandikoo ci Sankum Fati nekk colonel de gendarmerie à la retraite monté en puissance gendarmerie lu war la ndaxte il faut ñu yokk force yi yokk effectif yi yokk man mën itam. gendarmerie nag moom moo dafa nekk tampon la parce que mun na loolu mun na euh, euh, def guerre mun na def également maintien de comme la police parce que ñu ñaar euh, gendarmerie ñaari mission yooyu la. donc ci kaw loolu moo tax bi autorité yi depuis fukki at ci ginnaaw la ñu lal benn plan fukki at la. 2015 2020 vingt après ñu préparer benen, benen plan encore buy jógee 2025, mille vingt dem à 2035. commissaire de police à la retraite Cheikhna Keita feelu ko ni recrutement gendarmerie taxul ñu jàpp ni dañuy réorganiser sécurité bi ci côté gendarmerie police itam mi ngi bay ci côté boublé. soo ko xoolee da ngay comprendre gendarmerie par endroit day soxla am ay nit yu doy yi nga xam ni dinañ ko permettre ñuy def ay patrouille yu gudd di occuper ay espace yu yaatu parce que ci ndand foy foy gi la ñuy nekk loolu day soxla ay loxo yu bari day soxla ay jumtukaay yu bari mais loolu mu ngi dépendre ci ni ñu analyser ñoom seen mission du par rapport ak police wala leneen li ñu soxla la ñoom pour que ci ëllëg situation sécurité bi ñu am ñu mën a taxaw fi ñu war a taxaw police yi tamit day amorcer même démarche bi par rapport ak mission am ak li mu soxla noonu la ñuy xoolee équipement am nu déjà nous ngi monter en puissance mais ci lii nga d'un ni ci par exemple oui, situation intérieure bi nga il faut ñu maintenir il faut que nous l'ingé ci di taxawu jàmm di indi jàmm di di di samp jàmm te loolu police def ci am responsabilité ci situation exploitation pétrole bi il faut que ñu aar réew mi. mu toll nii kon gendarmerie day yokk effectif am police yokk effectif am ngir mën a fànq lépp loo xamante ni danger la ci réew mi ci biir réew mi ak ci frontières yi ndaxte léegi Sénégal nekk producteur de pétrole ak gaz. mbëkk mi du rek Afrique waaye tamit biti réew am na ñuy bëri ñuy jógee ci yenn dëkk yi ngir wutale États-Unis ña nga ca am xiig latine wala nag ba Salvador ne léegi dafa jàll di jël tax bu toll ci daanaka euh, téeméer ak juróom-ñaar fukki junni euh, ci tuñu kobal teg ko ci tax ñeel doomu Afrique yi foofee ak indien yi léeg-léeg di tubaab njaay lu ñëpp doon xaar nag yegsi na baare immigration bi gouvernement bu El Salvador jël na benn mesure boo xam ne africain yi rek la soxal ak waa Inde képp ku fa jaar ci dëkkam di nga fay mille cent trente dollars équivalent bi nga xam ne mooy suñ sept cent mille francs CFA lu ko waral nag mooy ñu si bëri fa lañ doon jaaree pour dugg États-Unis jaaree ko Nicaragua officiellement nag waxuñ ne dañuy xeex mbëkk mi mais taxe bi pour defaraat seen aéroport bi la moderniser ko képp ko yore passeport bu jógee Afrique ak lañ ko tegal lu ko waral nag mooy diggante bi nga xam ne moo amoon si président bu El Salvador ak jawriñ bi nga jógee États-Unis ñu naan ko Brian Nichols pour xeex mbëkk loolu sax moo tax Avianca compagnie bi nga xam ne mooy bu Colombie commencé ne di yëgal africains yi ak waa Inde ne képp kuy jël avion pour dem El Salvador di nga fay taxe bi bu njëkk nag immigré yi dañ doon ñëw wàcc Amérique du Sud ndax bi foofu la gënoon a yombee wàcc si àll Amazonie bi jël yoonu suuf bi pour dugg Mexique jàll Amérique léegi nag El Salvador ak Nicaragua lañ koy jaaree nga xam ne moo gën a jege Mexique pour dugg Amérique ndax coono gi bëriwul ñu bëri nag nee nañ mesure bi dafay xàjjale di discriminer ay askan ndax pression bu gouvernement bu Amérique def pour pousser immigré ñu bañ a dugg seen biir dëkk jaaree ko El Salvador ak Nicaragua lu ñuy laaj keñ nag mooy ndax mesure bu bees bi ñu def dina tere ñi nga xam ne di dem dinañ def mbëkk mi pour bañ a dugg Amérique de tubaab njaay la woon fii ci Brésil ci Amérique latine pour RFM.

ba nit ñi di mën di dem ak dikk ci réewu Afrique yi ak itam gën a ñongal euh, njaay mi ak njënd mi ci biir continent bi Paul Kagame ne nag bépp africain bi mën ti doon mën ngaa jël roplaan dem ca Rwanda saa yoo ko nammee te doo fay dara booy dugg ca biir réew ma euh, bu mesure boobee euh, buñ ko doxalee nag Rwanda mooy doon ñeenteelu réew ci Afrique mi supprimer visa yooyee jëmale ko ci africain yi ndax liste bi ña ca nekk moo di Gambie Benin ak Seychelles altine gi ñu ñu weesu njiitu réewu Kenya William Ruto xamle woon na ni namm naa def lépp ba euh, africain yi di ñëw Kenya te duñu fay visa fii ak fanweeri fan ak benn ci weeru décembre gi ñu dëgmal. ñu wutali Mali l'armée bi nag ne mu nga def lu la ngir daal fexe ba ñu daal respect manam sàmm lepp ak yelefu doomu adama neena sax ci seen i opération yëpp dañuy samonté ak yelefu doomu adama lolé ki nga xamné modi njital direction de l'information et des relations publiques bu l'armée bu Mali kaddu yoy nak mu ngi ko yëkki ci ab janno bi mu doon amal ak euh, taskatu xibaar yi njiital DIRPA bu Mali colonel euh, Souleymane Dembélé ci micro Zanga Abdoulaye watara les forces armées maliennes sont dans la dynamique de leur mission régalienne forces armées euh, kon Mali ci liggéeyam la nek défendre intégrité Mali et protéger population C'est ce qui lu leer la faama yi euh, force armée Mali ku une force armée yu professionnel la euh, ñoom duñu def dara population yi protéger plutôt dañuy respecter droits humains les humanitaires internationaux. internationaux. nous avons duñu nangu euh, wala groupe terroriste empêché kon force de défense et de sécurité Mali de faire ci wàllu mission régalienne, la mission qui lui a été confiée par le peuple malien. Mali ba léegi ak commission nationale bi yor lépp jëm ci wàllu ak gelefu doomu aadama commission boobee jéegal jébal na waa conseil national de transition rapport annuelam 2022 ci document ba nag euh, lañ ca saytu moo di euh, juróom benn mbir jëm ci wàllu tolluwaayu ak gelefu doomu aadama ci réew ma bokk na ci droit civil yeeg politique naka noonu ak ak yelefu nit ñi nga xamante ne ñoom dañoo néew doole ak itam euh, na mbir ma a demee ca kaso ya ak conditions yi nga xamante ne ñu ngi yóbbu nit ñi ca kaso ya ca kaso ya hmm. Niger moom ah, dañoo teg ah, loxo directeur national bu BCEAO Euh, talaata gi wessu lañ ko tek loxo ci euh, ñame lolé lañu RFI xamlé né mom euh, Maman Lawali mu ngi ci loxoy service de la sécurité extérieure difay tension bi nak ba jéegi xamlé guñu lutax ñu tek ko loxo mudi ñaarit bi yoon mom directeur bu BCAO directeur national bu BCEAO ñu koy loxo bi coup d'état bi amé fofu ci Niger ñaar fukki fa nak juróom ci weeruk juillet gi ñu waye njort nañ nag euh, lu jëm ci ni ñu taxawal versement koppar bu euh, bu banque centrale euh, des états de l' de l'Ouest te ñu waroon koy jox Niger ni ko taxawal gannaaw sanction ya nga xamante ne teg nañ ko ci ndodduk Niger bi coup d'état bi amee foofa. ñu waxtaan ci nga bu doy waar diggante Israël ak Hamas. secrétaire d'état bu réewum Amérique di Anthony Blinken ñu koy xaar foofu ca Proche-Orient ca Israël. moom euh, mu di ñaareel bi yoon euh, mu nar faa dem euh, foofu ca Tel Aviv ak Jérusalem bi guerre bi dooree ba léegi jamono ji nag Israël mi ngi commencé dàq liggéeykatu yi nga xamante ne Palestine la ñu cosaanoo te nekk ca Gaza. Ana ay junni junni ci ay liggéeykat yi bloqué woon Israël juróom-ñaari fan ci weeru octobre ak léegi ñoom ñoo daal di euh, dellu Gaza loolee la ab kilifa daal di xamle suñu naataangoo yu AFP bu ñu sukkandikoo ci wàllu monde ndoxteelu opération bile mu ngi tàmbalee ay waxtu dong gannaaw bi cabinet de sécurité israélien bi daal di wax ne Israël bëggatul sekk dara ak Gaza ci noone la ñu fas yéene kon dàq bépp doomu Palestine bu liggéeyee ca Gaza daanaka sax am na ay image yoo xam ne AFP wone na ko te muy wone ni ay nit ñuy daal di euh, traversé frontière bi diggante Israël ak bande Gaza ëpp nañ bi bi di doog tàmbali ëppoon nañ fukki junni ak juróom-ñett ci ay euh, doomu Gaza yu amoon permis de travail foofe ca Israël ambassadeur bu bees bu États-Unis foofe ca Israël daal tàmbalee liggéeyam jamono yi nga xam ne ñu ngi xaaraat secrétaire d'État américain bi Anthony Blinken Tambali, ñaareli tournéum ci proche orient depuis guerre bi ba mu tàmbalee ak légui li bëgg woté légui out. di ñu Nous ba ay solution mu a ngir Gaza Maison Blanche lu mu ñaan cesser le feu pause temporaire donc lo bëgg bu ko défé aide humanitaire bi mën a dugg Amne ji itam leneen lu am solo lu ñuy xaar muy moom la njiital esbola libane bi war a yëkkati tey jii Hassan Nasrallah jege loolu Hamas palestinien mi nga xam ne Iran moom moo leen di soutenir mu war a wax ne ndax moom dina dugg ci guerre bi am déet. lu jëm ci wàllu guerre boobu ba léegi euh, ca Tunisie moom euh, parlement ba door na démb ay waxtaan jëm ci ab projet de loi bi nga xamante ne euh, projet de loi boobee daal du neex waa Israël ndax ab projet de loi bi nga xamante ne day jàpp crime te di daan atu kaso giiru dun képp ki nga xamante ne jëmale nga ci wàllub lëkkaloog Isra Israël ca Colombie moom wayjur gu góor gu footballeur bii di Luis Diaz moom. Euh, dañ ko enlevé gouvernement bi mo xamlé lu ni mel euh, ni papay euh, attaquant bu Liverpool bobé ñu ko ñi ko ñi loxo ab unité la bok ci leel di guérilla ba nga xamante ba léegi ngi yëngu ci Colombie Luis Manuel Diaz lay wuyoo mom ak soxnam di Sedinis Marulando mom nak libéré nañ ko ñu leen enlevé ñaar fukki fan ak juroom ñetti octobre gi ñu weesu ci nord-estu Colombie nit ñu yoron ay moto def lu ni mel nak waaye gannaaw lolé mobilisé nañ takki derrière ngir Euh, ñu libéré leen gouvernement bi nag euh, door na ay waxtaan ngir jàmm euh, ak lenn moom li mu bëgg moo di moom papa yi Luis Diaz ñu bàyyi ko ci saasa. bu gaawul feeñ mën na yàq carrière lu doy waar la George jaajëf. donc lamb ji bu yàqoo rek yàqoowul ci sécurité côté sécurité parce que police li mu war a defee def na ko même la gendarmerie jël na ay matukaayam ci autoroute bi ba EDK jël nañ seen i matukaay pour vraiment fexe ba kenn du fa def naka su dul loolu. gannaaw bëri ñu waxtaan ci wàllu football. Ligue 1 mm-hmm. ñuy xaar nag chaque bu nar a neex foofee ci Amadou Bari diggante Guédiawaye FC ak euh, Casa Sport. ñoom ñaar daje nañu daaw ñeenti yoon euh, mu nekkoon jongante yu amoon mbooloo te xumb ci dagan lool ci pàkk bi ren itam gii moo nar a doon seen jongante gu njëkk naka lañ ko waaj waajalee ñoom ñaar ku ci nekk ci sa wàll wa nga féete soo da am Guédiawaye football club Casa Sport di jogante goo xamante ni bokk na ci gën a fës lu ñeel ñaareelu bëccëgu Ligue 1 bi match bu nar a metti la ci ñoom ñaar ñépp surtout ci côté Guédiawaye mi nga xamante ni bëri na lu ko Casa Sport di daan waaye bu ñu sukkandikoo ci entraîneur bu GFC di mbay Mbaye yi ñoom noppi nañ parce que daaw joué nañu ci ñeenti rencontre Casa moo gagné ñeenti après Guédiawaye doo ko gagné benn bi donc match bi match la boo xam na xel nañ ciy demee ak lañ cay séentu moo di ñetti poñ yi waaye itam Casa Sport wanewaat seen mënin bu ñu sukkandikoo ca manager général bu club Fagnon bu Ziguinchor boobu di Siyaka Badian. ñaari équipe yi dañu am bébétu nekk ci kaw a kaw si suñu football ba tax na muy Guédiawaye muy Casa Sport lii leen soxal suba mooy ñetti poñ yi te jàpp naa ni ñun Casa Sport ak xadar boobu lañ ñëwee géejuwaay comme Casa dañuy mobiliser supporters mu doon lu baax pour suñu football. ñom ñaari club yooyee nak ci ab match nul lañu joggé motax nopi nañ ñom ñëpp ngir am seen ndam gu ñëkk ci saison gile. que suñu at équipe tàmbali na di duggal ñaar bi loolu lu baax la buñ ko wëyalee gëm naa ni dinañu permettre ñu am ay poñ yu béré béré mais liñu ñu rectifier tam moy bit yu bëri njël yéen ñaari bit da doon la ñam ne dañ ko war rectifier te njort naa ne si semaine yëpp jëm nañ ko génné euh, match la boo xam ne liñ ci amélioré mooy mooy suñu phase attaque bi équipe bi amee dal am sécuriser seen i passe am possession jeu bi am beaucoup de mobilité ci kaw yaakaar nañ ne match bi loolu daal nañ ci rectifier par rapport ak match jaraaf bi. Casa nag moom mi ngi ci ndakaaru ngir jongante gi nga xam ne ni ki samedi nañ koy amal ca stade du bari bu ñeenti waxtu ci ngoon weesoo fanweeri simili. aser ji itam Dakar sacré dina laale ax waa jaraaf bu ndakaaru googa ca Alassane Djigo amee dibeer jàmbaar moo dee joŋanteeg waa Sonacos ca Lat Dior ca Ndar kii bu euh, Linguère mooy dalal AS Pikine foofa Wakam ci ndakaaru mu dajee ak wa Tëngéej FC ca Amadou Bari Fatick moom jamono Fatick moom faa dajanteeg waa Stade de Mbour Génération Foot Altiné ca moom ak US Gorée Ligue 2 ji itam da ko amal ni ñaari euh, jongante yi dinañu ko amal non ñeenti jongante dinañu ko amal ci ji Douane Duc RS of Snaps Excellence Oslo Agel Kër Lale, Akwa, ak FC la des dañu ko Altini, bés ni altine France tey Chingon, Paris Saint-Germain Montpellier danañu jongante Espagne Las Palmas Modefe, defee jongante ak de Madrid Italie Bologne Moy jongante ak Lazio Rome. mu ngoog jeex na ma Avec sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige DSL ak sen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeyri AAD ñoo leen may li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen gestu bi wa ANSD def ba xayma ci ni askanu Sénégal toll mom l'observateur xey toge kay bi agence statistique démographique ci sen recensement général bi nee nañu 18 millions 32 habitants ñoy yeewoo ci Sénégal xaaj ba 50 yep ay jeunes ñu tollu ci fukkeet ak juroom mo waral kay bi di l'observateur def ab taxaw seetlu ci réew mo xam population jeune ñu ëpp ndax loole lu bax la ci réew mi am ndax safaan walay don mi ngi ciy waxtaan ak borom xam-xam yu ci melne docteur Momar Diong enseignant chercheur géographie humaine professeur Aboukan dip agrégé ci wàllu économie ak Magay Gay dip économiste international docteur Diong nee leen réew mi bari ay zen dëgg la lu baax lay doon ci réew mi waaye ab lay doon nit ci seeni famille ak ci état bi état bi njiitam di Macky président national moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national moom ak général Moussa Fall mi jiite gendarmerie nationale yéenekaay bi nañu ci ndaje mi woon démb jëmoon ci daloo siège la république Macky Sall xam ne na fa yéene ju mu am jëm ci ñu yokk li mub gendarme yi nee na bëgg-bëgg mooy fii ak 2025 ñu recruter lu toll agents enquête dina kay mel ko nan ñu gendarmerie nationale duy caaxaan montée en puissance le journal bi bind ci xëtamu ñëk doli ci diñu ñu xibaar ne gendarmerie amna juroom ñenti ñeenti juroom juróom benn section de recherche ñaar fukki compagnie ak juroom ak ñaari téméri brigade yu manki juroom 195 brigade te njiit réew mi Macky Sall wax na démb ne fii ak 2025 danañu recruter fanweeri junniy gendarme ak juroom réew mi quotidien ñu njiit réew mi taxaw na temm ci xex insécurité gaduna jass ji fas yéene dog boppu terrorisme trafic de drogue pirate maritime pêche illicite cybercriminalité ak anam bu ñaaw yi ñuy ko ci réseaux sociaux yi ba ñuy inauguré démb siège bu état major au commandement de la gendarmerie nationale président Macky waxal na fa général Moussa ay baax-baaxam nee na ko mission bi ñu la dénk yaa koy doxal ci rigueur yaa koy doxal ak loyauté yaa ngi koy doxal ak professionnalisme xam nga li la war te sax nga ca maanaam sens du devoir la kay jàpp ne président Macky da doon waxali mbaax général Moussa Fall meneen di Thiendella directeur général ngir mu jëli fiche de parrainage yi Ousmane Sonko yi di Ayib Daffé demaat na démb waaye kenn joxu ko fiche de parrainage yi loxoy kese la fa duggee loxoy kese la fa génne sour sooy ne ko moo tax bu mu génnee yàq ne leen xeme Sud Quotidien bind na direction générale des élections acte de njaaxaanaayam xel na ci ndax justice bi jël na dogal DGE lànk ne du ko def Moundiaye Cissé directeur exécutif ONC 3D ni ci xët mu njëkku yéenekaay bi li ñuy doxalinu direction générale des élections du lenn lu dul jëf ak banditisme administratif le témoigne ak journal l'info xey di ñu xibaar ne avocat Ousmane Sonko yi am na beneen recours bu ñu Sénat commission électorale nationale autonome lañu cey cay moy comme direction générale des élections nanguwut a jox Ousmane Sonko ay fils de parrainage am na Sénat substitué wu jox leen seeni fils de parrainage wutum parrainage ci réew mi bés bi le jour nee nañu luusa nga ci yëral xët mu njëkku yéenekaay bi am ñuy dem ci nit ñi di jënd seen identité ci ab reportage bu mu def ci banlieue bu Dakar fo la gisé ne nit ñi ñi ngi jënd identité yi ci 2000 francs japp 5000 francs am kooku wax ci yéenekaay bi ne jaay na 500 fiches ci million ndax gaañi ay parrain la soxla moom nag parrain la dafa yor kër am ay sars ñu desarse ci politique bi jël sunu làmb wax ci làmb ji war a am dimanche ji ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé Modou ci xët mu njëkk sunu làmb muy xam le ne combat bi sama combat la maa ngi xaar Ama Baldé de ferme libération mel ne ku naan ñu ngi xaar ku waa Pikine yónni yàkkamti ko mi ngi xaar koo xam ne Pikine gi a li libération nee nañu mooy ni maire bu ji de caare ko Mamadou Gueye doxalee ak moom Ama Baldé moom keroog bi Ama Baldé di def open press am ci stade Alassane ko jàppale ak di ko ko fab drapeau yamu ca na ko ci wàllu koppar baaxee na ko ay bus jëndal na ko ay ticket lépp rek ngir bëgg sëll bu ndaw di Ama Baldé indil ci ko nee na combat la boobu kenn mënu laa wax fan lay mujje combat la bu ubbeeku ko seq muy muuduloo di Ama Baldé kan la ci ñoom du ci dellu gannaaw sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige DSL ak seen mark bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeyri AAD ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jaajëfal ko ngi ci ligne bi ak sunu ñaari gan Abdoulaye Seck ak Ibrahima Gueye sëñ Abdoulaye Seck maa ngi lay ziar. Ibrahima bu dee mu ngi ci ligne bi Ibrahima Gueye maa ngi lay bu baax a baax. maa ngi lay jërëjëf di professeur titulaire agrégé ci science gestion ancien euh, doyen bu science économique ak gestion bu université bu Gaston Berger bu Saint-Louis. euh, nga wala tamit am nga li nga xam ne moom mooy lim yi di euh, askan wi mm, ak tolluwaay bi léegi ëpp nañu fukki million ak juróom-ñett waaye tamit lu ci gën a euh, ràññeeku mooy population la boo xam ne ndaw ñi ëpp foofu lool loolee ban njàng la ci mën a am. waaw xam nga bu ñu xoolee yi nga xam ne moom moo génn ci recensement bi ñu am euh, dañu naan population sénégalaise bi population la boo xam ne dafa am ay ndaw yu bëri am ay euh, góor yoo xam ne lim bi moo xaw a ëpp tuuti euh, jigéen ñi même si ëppel bi taxu ko demee noonu jàpp ñu xoolee sax li yëngal wax bi ci côté boobu noonu mooy est-ce que loolu mën na changer de manière profonde

nit ñi seen dëkkuwaay yi seen nekkin seen formation seen euh, instruction civique euh, gën a yemb donc loolu yëpp dafay nekk ay jàngat yoo xam ne mën nañ ko def euh, ci mm-hmm. résultat wu recensement bi et mi tax aussi ñu mën a xalaat ni état bi war na mën a xeppi xolam xool bëtam plutôt xool jël ay décision yoo xam ne dina tax ndaw ñooñu nga xam ni bëri nañ ci population bi

dafa am toof-toof ngir dugg wala mu nekk ci daal loo xam ne ñàkkul tam te euh, tey euh, ajuma la euh, li ñu wax ne askan wi askanu bu jeune la maanaam ndaw ñu ëpp foofu loolee avantage la wala bu dee avantage la lan lañ ci wax a def ba ñu mën ci njëriñoo wala ndax am na aussi loo xam ne baax na naam ci dëkk waaye ndax Sénégal tey am na ay jumtukaay ngir daal fexe ba askan woowee di ay ndaw lool ñu ñu am ci njëriñ

notion de dividende démographique euh, nous avons nek avantage à condition que nous euh, former à condition que nous mettre dans les dispositions de formation bu leen di may ñu mën nek euh, ay entrepreneurs euh a fexe ba nga en avantage nous mën jariñ dëkk bi effectivement donc mënuñu décréter que ni avantage des wala inconvénient lépp mu ngi dépendre ci ban politique lañ teg ban engagement lañu ñu et ban responsabilité la état jël par rapport ak ñoom moo tax sànq ci wolof hmm. maa ngi wax naan euh, jot na nag Sénégal euh, ñu xam ni mënuñoo continuer rek naan euh, lan moo tax xale yi di mbëkk lan moo tax xale yi dem malgré li état bi teg ndax ki nga xam ni dafa toog am vingt cinq ans trente ans trente cinq ans war a xool ay waajuram amul lu mu leen jox war a xool ay waajuram amul lu mu leen taxawoo war a toog continuer di espérer lu ñu ko gérer kooku du am loo xam ni dina am xolam du ci le nerf mën hmm. donc de mon point de vue état bi def politique courageuse la même dans le sens de instaurer ce qu'on appelle un revenu universel et euh, trouver à travers une ressource naturelle, hmm. euh, comment financer ça de manière durable. et je pense que ni bu une politique efficiente euh, dans la gestion des ressources publiques il y a des possibilités de le faire d'autant plus que ni loolu dafay aussi un engagement civique am un engagement à se former. Hmm. et que loolu dafay am ay conséquences ci dëkk bi. Hmm. Euh, parfois suñu dëkk yi dañuy euh, rapidement évacuer question yu mel noonu en pensant que ni attanuñu ko amuñu xaalis bi amuñu doole bi mais je pense que ni bu ñu xoolee lépp li nga xam ne dañ koy gaspiller par là war nañoo mën a am ambition bu demee noonu et ambition la boo xam aujourd'hui moom mooy ci suñuy doom et aujourd'hui dafa nekk lu ñu la véritablement. mais bu ñu bu ñu euh, ci recensement bi parce que ñu bëri dafay commentaire ne ñoom kenn recensé wu leen. Euh, te tamit euh, nañ ko wax tamit te dee euh, ñoo ngi ci lu ëpp 18 millions ndax waru ko woon ëpp ndax gis nañ ne wax dëgg yàlla tamit ñi ñàkk seen bakkan ndaw ñu bëri nañu lool waaye tamit ñi taxoon ne recensé wuñu leen dañoo bari ndax loole dañu ci war a bàyyi xel wala loole yàqul dara ci recensement bi. waaw xam nga loolu économétrie yi ak statisticiens yi am nañ ay tontu yoo xam ni amal nañ ko ci ci seen métode am nañ ay forme yoo xam dafa leen di may nit ki même bu fekkee fekkuñu ko ci kër gi am ay type ak ay instantané yoo xam ne leen di may ñu mën a def extrapolation ba mën a intégrer ñëpp donc yaakaar naa ni euh, dégg ay nit yu naan man de euh, gisuma leen euh, mën na yàq lu bëri ci chiffres yi je pense que chiffres yi war nañ cee mën a am yaakaar véritablement surtout boo xoolee taux de croissance bi depuis deux mille treize depuis deux mille waa treize recensement bi ñu defoon ak recensement wu tey bi jóge nañ ci lu tolloon ci ay quinze millions tey ñu yegg ci dix huit millions donc ci ci ci fu ci fukki at ci fukki at. ci fukki at exactement. donc yok nañu ñaata yok nañu. yok nañu ay ñetti millions ñetti millions à peu près. lu manqué tuddi ñetti millions. fii ak deux ñu ngi yaakaar Sénégal population bi yegg ci ay 25 millions. de population. donc mun nañ gëm ni que quand même croissance bi nekk na croissance bu crédible en quelque sorte. mu ngok jaajëf jaajëf Ibrahim Gueye. jërëjëf jaajëf Birame Gueye. Euh, di ki nga euh, euh, économiste la professeur titulaire agrégé ci science gestion nekkoon doyen science économiques ak gestion de l'université Gaston Berger bu saint ndax bëgg nañ Abdoulaye économiste di formateur ci gestion projet centre de formation judiciaire mu dafa am bu baax boo ko jàngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydou Nourou moo moom woon ci micro bi technique may sa mbay jumatul mubaaraka asalaamaaleykum